رضي الله عن الصحابة والتابعين رضي الله عن شيخنا أحمد التياني وعن سائر مقدميه وخلفائه رضا يعم الجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw bu ñu santee borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko mu wutuñu ci jullil ñu ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam euh, ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullah di wax ne ñu ngi nekkoon ci téere bu barkeel bi ñuy wax kitaabu rimaaxu xisbi rahim ala nuxuuri xisbi rajim li sayidina alxaaji omar ibni saidin téere bu barkeel ñu nekkoon ci trente-neuvième chapitre bi xam ne sëriñ bi yaatal na ko lool ci wax ngëneelu werdu tariqa Cheikh na Ahmed Tidiane ak source yi mu bàyyikoo ci alquran ak sunna nga xam ne loolu fa tabarakallahu eh, jàngale na ci listixfaar jàngal ci salaatu ala nabi ba ñëw ci salaatu fatiha ak multiplication yi ñëwoon ci ders bu Cheikh na Tijaani joxe woon ci wane ni multiplication salaat fatih kenn xamul lu mu toll ndax ruux yi moo tax euh, Cheikh Omar nag dars bi passé mu ngi nekkoon ci règne euh, animal yi maanaam la science géologie yaatal na ci lool nga xam ne tubaab yi ñu ngi ci doog a ñu ngi koy doog a découvrir euh, les espèces y compris les oiseaux ba mu ngi tollu toll woon ci hudhud ak la l'araignée animale ak les fourni gis nga sëriñ bi yim ci jàngale yépp les ébailles les araignées ak ya ca aju yépp mu toll woon nag ci les espèces d'oiseaux mu indi ci bu ñuy wax hudhud xel mi mu mën a am dem ba ci la reine de Saba mën a xam ne jaamu gi muy jaamu jant tegul ci yoon ba mu ñëw informé ko Suleymaan ba mu jur benn relation bilatérale ba mu jur kooku des milliers de personnes mujj tuub te médiation boobu yëpp hudhud moo ko def mu wax ne est-ce que di nga mën a nangu ne kooku amul xel hmm? mu ne wa min at-tuyuri wasailu xayawanati al maarifi allatifati allati la tukaadu dhawul aqli rajixa yahtaduuna laha xususan fi zamani nabiyin suxirat lahu tuyur wa ullima mantiqaha wa xumila wa jubila wa jucila dalika mucjizatan lah summa qaala wa lamma faraga alhudhud min kalaamin qaala sa nanduru mu ne mu ngi yéem hudhud maanaam jàmbaar googu mu mën a am ba mën a dox relation bu rafet boobu ba Suleymaan mi ko digwoon ne ko dina ko punir gis nga fi mu mujjeek moom mooy reconnaître médiation tabaarakallahu ba euh, xam naa bu doon tey da ko takk tappal ay médaille yooyu ci nga xamee ne daal tabaarakallahu ñoom daraa ngi ci ñoom euh, mu ne wa baqa fi xatiri kaza fa yujibul ax bi misli wa yataxada nga gisaat ne boroom ibris dafa wax ne saaxibul ibris wa samitu yaqulu inna nuura ida raa inna thawra ida raa thawran axara yatakallamu maahu bima waqaa lahu fi saairi yowmihi fa yaqulu lahu raaytu ashabata kaza wa kaza wa sharibtu maa kaza wa kaza wa baqa fi xaatiri kaza fa yujibu al axar bi misli dalik wa yataxaddasaani bima shaa allahu wa fi kalaamihima taqaatiicun wa taqdirun bi manzilati alxuruf walmaxaarij min kalaamina walakin dalika maxjubun canna wa kada kalaamu saa'iri alxayawaanaat walashjaar walaxjaar kama annahu xujiba canha simaacu kalaamina bimaxaarijihi wa xurufihi almutaqaticati bal laa yasmacuuna minhu illa siyaaxan wa aswaatan wa amma man fataxa allahu alayhi fa innahu yasmacu kalaamaha yafhamu macnaaha wa yacrifu altaqaatic alladi fiihi wa fahimahu birruuxi warruuxu tacrifu almaqaasida wal agraad qabla annutqi biha wa ma daamat lam tara maftuuxan alayhi min alajam wa maftuuxan alayhi min alcarab wa huma yataxaddathaani saa'ira yawmihima wa yatakallamu hada bi ajamiyatihi wa yujibu al axar bi arabiyatihi fa innaka lam tara shay'an Cheikh Omar nag bi mu indee loolu Siraajul Munir waxoon ak të lubaabul tawil dafa mel ni yow dars bi agsi na ci yow ndax li mu bëggoon a jàngale rek mooy oiseaux yi dañuy wax mu ñëwaat ci beneen référence nga xam ne bu foor la muy al ibris bu Chérif Abdoul Aziz borom ibris itam nee na euh, ki muy waxal muy ahmad ibnu mubarak ne ko aka neexoon nga mën a gis nag nag te waxoon nañ ko ci dars yi ci gannaaw mooy li ñuy tuddee vache wala tóoroo baatu tóoroo ci arab la jóge thawru la tudd mu ne boo gisoon a thawru muy tóoroo nga gis ka mu gisaat ra'a thawran mu gis beneen tóoroo ñu taxaw ñoom ñaar di waxtaan boo gisul loolu daanaka da mel na ni gisoo dara mu ne ko tóoroo fu mu gisee moroomu tóoroom tatakallamu maahu day waxtaan ak moom mu ne ko tey de sama journée bi neex na trop parce que am naa chance u lekk naa ñax sàngam lekk naa ñax sàngam dem naa espace sàngam fekk naa fa ndox mu sedd nan naa ko di expliquer moom ay information journalière am bu ko defee mu ne wa sharibtu ma ak kaza naan naa fi barab dég sàngam euh, abreuvoir tel dem naa fa ba naan naa fa tel wa baqiya fi xaatiri kaza tey sax dama doon xalaat ci nangam ak nangam euh, bu ko defee fa yu jibuwul aaxar beneen tóoroo bi di ko tontu nekk man it def naa lii def naa lii def naa lii ci journée bi way taxaddasaani macha allahu ñuy waxtaane lu sopp yàlla maanaam comme mu ngi mel ni ñaari copain yu daje di waxtaan seen biir yow nag boo gisee ñuy nàñña noonu rek nga naan nag bi nag bi fekk na nag bi ñoom ñu ngi waxtaan seeni soxla ni ngay waxtaanee yow teg sa ataaye ak sa xarit di waxtaan ñoom noonu la ñu mel euh, wax dafa am lu ñuy tuddee modulation modulation moo di liy daggat wax ji masalan par lettre lettre après par syllabe syllabe par euh, mot mot après nga jël par phrase phrase ñoo xam ne daggitu wax yooyu moo lay mën a xamal euh, compréhension wax ji lan la boo ne woon yaay maa ngi dem ci boutique ba xam nga daggitu wax yi ak wuutey wax yi moo mën a moo la mën a jural son loolu lañ tudde modulation des paroles euh, wax nag pour nga mën a dégg maanaa bi faw mu am modilation boobu faw mu daggante nit bu ñëwoon rek yuuxu waa jëm ak waa bi cinq minutes di nga xam li muy wax faw wax ji day daggate léegi ñun li ñuy dégg ci bàyyima yi xam nga benn son la rek pudul am modulation bu gis gis nga nag bi day nàññ rek amul benn modulation kon nan ngay déggee waxam gis nga fas bi dafay ngexal rek amul benn modulation mbaam mi gis nga itam dafay ngexal rek euh, dafay naax rek amul benn modulation ñu laaj ko ndax ñoom seeni wax entre eux dina am modulation wala déet mu ne effectivement seeni wax dafay am ay taqaati ay dog-dog wa taqdir ak ay nattale bi manzilatil xuruf lu tolloog ñun ci ñun ay lettre gis nga nag bi buy wax ak moroomu nagam wax bi dafay am ay lettre am ay syllabe am ay mot am ay phrase pour moroom mi mën a comprendre te yow miy déglu yow benn nàññi rek ngay dégg wala nangam te ñoom sax ñuy waxtaan entre eux du def son ci yow da ngay gis ñu taxaw nii rek mais du la jox son bi mais ñoom ñu ngi ci jot mu ne nag mais mahjubun yi moom du mën a xam loolu mu mel ni dafa yéem euh, taalibe bi doon bind loolu muy Seydi Ahmed Ibn Mubarak mu ne et du ñoom rek nag yi rek du tóoroo yi rek mais mbooleem espèce yi mbooleem animal yi ak euh, garab yi végétation yi ak xeer yi muy minerai yi ñooñu ñëpp seeni wax dafa am modilation maanaam xeer dina dend ak moroom xeeram di waxtaan yow nga jàppale xeer bu taxaw fii rek la fekk na ñu ngi waxtaane seen actualité te yow yëgoo am na benn nitu yàlla bu yéeme dafa toog ci mbooloo di waxtaan te li ci yéeme mu ngi dund ba tey mu ngi dund ba tey dafa toog ci mbooloo di waxtaan ak mbooloo mi jekki-jekki benn xaj daw dugg ci mbooloo mi xaj bi bi mu dawee dugg ci mbooloo mi kilifa gi doon waxtaan arrêté waxtaan bi di fixé xaj bi fixé xaj bi xaj bi di mbëw ab diir xaj bi génnaat mu ne mbooloo mi xaj bi li mu wax baaxul de xaj bi de information bi mu ma indil metti na lool ñu ne ah mu ne xalif général des Tidiane la ma doon tàggu li tàgge léegi ne faatu mbooloo mi jàpp ne sëriñ dafa ne ci xaal loolu man xam naa ki ko def te mu ngi dunda ba tey ñu jàpp dafa nekk ci xaal nekkete loolu mujj na am nit ñi defe naa huit heures de temps après wala douze heures de temps après lañ koy soog a yëg nga xam ne gannaaw ab xaj mooy tàgge dëj hmm? nga xam nañ kon ñooñu ku jàpp ne conscient ñu euh, yow xamoo lu bari mais seeni wax tey am modulation gis nga kii tàgg dëj bi moom dépassé na loolu moom modulation xaj bi sax mën na ko surprendre kon yow war ngaa mën a nangu ne xaj bi entre eux ñoom seen bopp dinañ mën a déggante parce que gannaaw xaj mën naa dégganteeg nit mas kon moroom moroomam te loolu la sëriñ bi bëggoon jàngale mu ne ñun nag yow boo amagul fatxu benn son buy yuuxu rek ngay dégg ak ay baat waaye wa amma man fataha allahu alayhi ku yàlla ubbil moom fa innahu yasmau kalama day dégg waxam wa yafhamu maanaha mu xam sax li muy wax comme kii ma wax léegi wa yaarifu taqaati alladi fihi mu xam itam modulation yi ci ne yëpp wa fahimahu mais da koy comprendre ñu ne ci lan ci noppam mu ne non bi ruux yi ci ruux maanaam da lay wan kon pouvoiru ruux ni mu toll ñu nekk ah ruux la koy dégg du ko dégg ci noppam mu ne waa parce que ruux xam na détail yëpp ruux xam na détail yëpp bul fàtte ne njàngale mi yëpp pouvoir ruux la la bëgg a jàngal euh, ba yàgg sëriñ bi ci boppam muy Chérif Abdou ne taalibe bi aw oh, aka neexoon gis nga képp ku di gisagul euh, scénario bi rek xamagoo pouvoiru ruux mu nekk ban scénario mu nekk ñaari nittu yàlla yu daje te déggantewuñu làkk kii mu ngi làkk chinois kii di làkk français wala kii di làkk chinois kii di làkk wolof kii ñuul kuuk kii weex mais ñoom ñaar ñëpp am nañ fatxu Chérif Abdou Aziz nee ñoom ñaar buñ dajee mën nañu toog waxtaan quatre heures de temps di waxtaan di xaxataay te kenn déggantew ceeg sa moroom lang mu nekk waaw kon nu ñuy waxtaane mu nekk kële mu ngi waxtaane ci langu chinois maanaam day waxtaan ci langu chinois mais maftuxun alayhi beneen bi ci des du ko déggee ci noppam mais ci ruuxam la koy déggee kon ndekete kooku soxla interprète de même que de retour kële itam buy wax ak moom ci langue olofam lay wax ak moom kële itam mu koy déggee ci langue langue ruuxam bu ko defee ñuy waxtaan ba lu jar jooy bu jaree jooy ñu jooy euh, lu jar ree bu jaree ree ñu ree te dangay gis ni ñoom ñaar tabaarakallaahu ñu ngi toog di waxtaan ñu rew ñu po waaye ñu ñu làng mais kenn ku nekk mu ngi dégg sa morom mu wax ne loolu li fa jaar mooy ruux la ñuy dégg ruux nag am na sax beneen bu gën a yéeme mooy ñaari nitu yàlla yuy waxtaan ñaari nitu yàlla yuy waxtaan ci kenn waxul ñoom ñaar dañuy toog rek di xoolante nii xam nga ñaari ñaar ñooñ di waxtaan war ngaa gëm ne léeg-léeg euh, wi fi partagé moroomam te kenn du wax mais jëf ji mooy am ruux ndekete dina waxtaan ak moroomam te kenn du wax dañuy toog di xoolante nii rek yow nga foog ne waxtaanuñu euh, fekk na tabaarakallah ñu ngi déggante am na beneen bu gën a yéeme mooy bi nga xam ne waa ji mu ngi nekk ci extrême est bi keneen ki ci nekk ci extrême ouest maanaam kii mu ngi penk kii mu ngi sow ñu toog di waxtaan ñoom ñaar non seulement am nañ distance corporelle waaye ñu ngi déggante ñu ngi waxtaanante xëy na bokkuñu sax làng waaye ñu ngi waxtaanante man sama benn sëriñ mës na ma wax ne da doon waxtaan ak Thierno Mountaga Tall te moom mu ngi tënge Thierno Mountaga moom mu ngi Dakar <clears throat> boobu mu ngi ci dund mu ne ma laa doon waxtaanal biig te mu woor ma ne ma yoru téléphone fekkewul sax jamono téléphone yii yaatu nii mu ne dañ mu gëmloo ma ne dañuy waxtaan lu bare bari Cerno euh, déggul olof bu baax moom moom itam déggul pulaar Cerno nga koy tooñ ne ko yow lenn rek moom a jaaxal ci yow da bari looy wax di ci utiliser baatu français te ñun euh, bëgguñu français ci suñuy kàddu ndax xam naa ku Cheikh Omar di maam ak fi mu jaar ak tubaab yi euh, ñu sawar ci lool mais waju saayit bi li ma ci bëgg a seede mooy xoolal kooku mu ngi nekk kii minimum seen diggante lu mat trente kilomètres dox na fa Euh, kenn déplacé wu ci ndax ki may wax nii màggetoon na ba nga xam ne mobilité am yombul woon cerno itam noonu mais dañ daan waxtaan loolu lan lay firi mooy waxtaanu ruux mu ne wa mimma yu ayidu kalaama alcheikh radiallahu anhu fi qawli cheikh wartajini fi araisi albayan inda qawlihi taala tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardi man fihin wa min shay'in illa yusabbih bihamdihi walakin la tafqahun tasbihahum inna allaha awjada alxalqa bi qudratihi alqadimati alazaliyati walmashiati alsaabiqa waliradati alqaimati bidaatihi wa ilmihi wa xikmatihi fa xaraja alkawnu min adamin min adami ila ma dahara biha alayha min sifaati alqidam fa baashara anwaara qudratihi alwujud fa atharat qudratuhu wa mubaasharatuhu fi alashyaa'i alarwaaxi alxadrati walcuquli alrabbaani walalsinati alxayaariya xayaatiya walmacrifati alabadiya wa rafa alxijaab min bayniha min bayni maadini alqudrati wa masadir alficli fa shahadat alasya masadiraha fahtazat arwaxuha eh, binaati ashqiha ila maadina wa takallamat alsinata biqudusi xaaliqiha wa taqdisi bari'iha wa tasbixi saniciha وذلك من حياة ناقصة شائعة من تأثير الحياة الأزلية فالكل في حياته قائم بتلك الحياة musabbihatu lisaani iha bi tilka al alsina wa dalika min silai gawashi anwaari alqudrati wa subahati alazamati alayha fi samawat tusabbihu lahu bi lisaani alazamati wal ard tusabbihu lahu bi lisaani alqudrati wa man fihina yusabbihu lahu min dawati al arwaxi wal xayawanati bil alsinati sifaati wal afaali ala qadri maratibi wa jami asya tusabbihu lahu annaami annaamiyaat wal jamaadaati alzahira bilzahirati min qawli ahli rusum laa min ahli euh, almaarifa yusabbixu bi lisaani al awsaafi wal asmaa wal nuud wal aarifuuna bihi min baadihim yusabbixuuna lahu bil alsinati daatiyati li annahum fi shuruqin wa fi shumuusi al azali wa anwaari tuluuci al aqbaari al abaadi walakin laa yucrafu tasbiixu al jamiic illaa man tajalla al xaqu bi sir li sirrihi wa ruuxihi wa caqlihi wa qalbihi wa suuratihi bi jamiici dawaati wa sifaati wal asmaai al gaybiyati والأشياء الغيبية روحانية ملكوتية تسبح الحق سبحانه وتعالى بلغات غيبية وإشارات أزلية ولا يسمعها إلا أهل الشهود إلا أهل الشهود الغيب الذين ينطقون بالحق ويسمعون بالحق ويعقلون بالحق ويعرفون الحق بالحق وينظرون بالحق إلى الحق وتصديق ما ذكر وتصديق ما ذكرنا في تسبيح الجمادات ما روي ما روى أنس بن مالك قال kunna inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa axada kafan min xasa fa sabaxna fi yadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xata samicna altasbixa summa sabahunna fi yadi abi bakr fa sabaxna summa saba summa fi yadi umar fa sabaxna summa samicna tasbix summa sabahunna fi ay aydina fama sabaxna fi aydina waddalil ala dalika sidqu hada alxadis qawluhu taala yaa jibaalu awibi maahu aw sabbixi maahu wa macrufun an aljibaal tusabbixna bi tasbixi daawud alayhi salaam wa an jaafar ibnu muhammadin an abihi qaala marida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ataahu jibril bi tabaqin fiihi rummaanun wa cinab fa akala annabi sallallahu alayhi wa sallam fa sabbaxna summa daxala alxasan walxusayni fa tanaawala minhu fa sabbaxa alcinab summa rummaan summa daxala cali fa tanaawala minhu fa sabbaxa aydan ثم دخل رجل من أصحابنا فتناول فلم يسبحنا قال جبريل إنما يأكل هذا نبي أو ولد نبي وأصدق التصديق بقوله تعالى في آخر الآية إنه كان حليما غفورا ومن حلمه وغفرانه أنه عرف المخلوقات كلها نفسه بصفاته القديمة الأزلية ولولا حلمه وغفرانه ما كان الكون ولم يكن بلسانه yadkuruhu walakin bi karami wa rahmatihi wa wahab lil kulli min sultaanihi wa burhaanihi lisaanan wahab lil kulli min sultaanihi wa burhaanihi lisaanan yusabbihu bihamdihi e, shaamilun li kulli darratin wa thanaa'uhu fi kulli lisaanin kulli darratin subhaana al-ghaniy al-muhsin wahab wahaba ataa'ahu al-'amiim wal karam al-qadiim bi ghayri istihqaaqin min al-kawni wa laa yubaali قال أبو عثمان المغربي المكونات كلها يسبحن الله باختلاف اللغات ولكن لا يسمع تسبيحها ولا يفهم عنها ذلك إلا العلماء الربانيون الذين فتحت أسماع قلوبهم فتحت أسماع قلوبهم قلت ويكفي في هذه المسألة قوله تعالى أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء قلت وإذا تقرر واتضح وظهر لك صحة كلام الشيخ ظهورا laa xabaara fiihi wa tabayyana jahlu man la'allahu qad yactaridu alayhi fal narji ila ma kunna bi sanadihi fa naqulu thumma qaala cheikh euh, Mawlana Alxaaji Omar radiallahu anhu gannaaw bi mu indee citation borom Ibris euh, wax ne moom xujja la bul xeeb waxam ndax moom jàngul woon téere yi ba mën a xam maraajic yi waaye moom lépp lu muy nettali rek moom borom Ibris da cee teg bët da koo gis donte moom gisul woon ci bëtu zahir mu ne maa ngi dëggalaat ba tey kooku sëriñ boobu li mu wax li imam cheikhu waratan ji ni wax ci araisul bayan nga xam ne tafsirul quran la e, nga xam ne moom mu ngi koy tafsiré ci lisaanul qawmu maanaam ci làmmeñu gaay yàlla yi bi mu agsee ci aaye boobu yàlla wax ne tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu man fihinna yàlla daal ñi ne ci asamaan ak suuf ñëpp amul ku ko ci dul sàbbal ndax amul dara lu dul dinañ tudd yàlla di sàbbal yàlla di ko sant donte ñun ñoo ko déggul kooku nag bi muy commenté aaya boobu dafa wax ne yàlla moo amal ci kartanam gu yàgg gi ak coobareem ak namm-nammam ci jëmmam ji ak xam-xamam ak xereñam la amalee lu mu génnee mbindeef yi ci ñàkk gi nekkoon ñun ñëpp avant ñuy am dañoo ñàkkoon mu tàllal ko nag ci ay may ak xéewal sotti leen leeram moom yàlla subhanahu wa taala euh, waaye nag dafa favoriser yenn ruux yi ci yeneen ruux yi ci des gannaaw bi mu leen bindee ñii mu ëppal ci ñoom leer gi ñi ci des mu néewal ko ci ñoom loolu coobareem la ki ngay mën a xam ne kon ruux yi ñenn ñi dinañ xam lu ñeneen ñi dul xam ñenn ñi man lu ñeneen ñi dul man loolu lan la bëgg a kon ku mën a toog di dégg sàbbaalu euh, malaaka yi di dégg sàbbaalu garab yi di dégg sabalu bàyyi ma yi maanaam yow du excuse ci yow nga ne loolu amul parce que déggu ndax ki séddale mbir yi moo ko yemalewul woon ca ca ësël mu ne noonu la wuutalee itam xel yi ak làmmiñ yi ba làmmeñ yi mën a wax lii ñeneen ñi ci des duñu mën a wax lii ñaata làmmeñ ñoo nekk ci àdduna bi ñii mën a wax lool la laa ilaha illallah ñi ci des mënuñu koo wax mësuñu ko wax yàlla mi wuutale may yi dëppi moo wuutale tabaarakallaahu cosaanu may yi a kartan yi kii man lii kii télé lii euh, loolu nag ba ko yàlla defee ca ësal dafa sotti ci ñoom leeram ruux yi am ci ñoo xam ne dañ ci dund bu baax nan ci buñ doon wax dañ naan nan nan ba mandi ruux yooyu am na kàddu yu ñu wax ci làmmiñu leeru yàlla bi mu sotti ci seen ruux ñu xam ci yàlla xamin goo xam ne xamuñu ku leen ko jàngal lu dul leer googu ñu sotti ci ñoom waaye itam am na ci ñoo xam ne moindre lumière lañu recevoir loolu jural leen seen xam yàlla ndax ku xamul yàlla amul waaye ñoom seen xam gi ñu xam dafa limité lool moo tax li ñuy mën a jaamu yàlla limité lool li ñuy mën a comprendre ci yàlla limité lool bi ñu ñëwee gis nga itam ci àdduna dafa mel ni limite boobu moo def genre benn couverture ci seeni xol ba nga xam ne weddi dëgg daf leen yomb ndax itam naanuñu woon leer gu toll noonu foofu est que ñoom li ñuy weddi kon am nañ ci excuse xam nga ñoom loolu ñuy def tayuñu ko ndax ñoom bu leer gi matoon ndax koo gis tabaarakala mu dem marché fekk légumes yi nga xam ne yi baaxoon yëpp trie nañ ko ya a bon ak yu fuus yi mu ñëw di ci tànn wala yenn yi mu ciy waxaale pour ñu dimbali ko ci jaay ko ko ci warteer kooku xam nga doo mën a waat ne milliardaire la. Hmm? la mu tolloon lay jënd ruux yitam itam lañ mel kenn ku ne la nga naan ca leer rek boo ñëwee fii noonu ngay mën a doxee bu ko defee nga gis ne ñooñu couleur googu dañuy limité wu lool. ndax màgguk yàlla liñ ci am du bari torop bu ko defee dinañ tudd yàlla sax waaye léeg-léeg ñenn ñi seen làmmiñ da ci lot seen ruux rek moo koy tudd ndax moo jot a xam dëgg-dëgg kon nga gis ne yàlla ndekete tooñul kenn waaye kenn ku ne na mel itam coobare yàlla la ndax moom moo wuute la may yi noonu itam ci ngay gis nag ci ruux yooyu ruuxu bàyyi may comme ñoom amuñu couverture yooyu ñoom ñu xam yàlla xamin gu ëpp sax koo xam ne xëy na nit ki ngay gis xame na ko noonu waaye du caaginu ruuxam la ëppal mais jëmmam jëmm ji jëmmam mooy réere yàlla waaye ruux moom yépp xam yàlla borom araisul bayan loolu la seede nga gis nekkoon dafa bëgg a wax ne diversité bi nekk ci jëmm yi du dara lu dul leer yu ñu naanoon ci ësal ñii naan lu bari ñii naan lu tabaarakalaaw limité wu waaye nee ki nga xam ne nag dafa naanoon lu bari ba ñëw fii def tarbiya ba ruuxam toj nga xam ne ruuxam dara tënkatu ko ba nga xam ne tajallallahu bi sirrihi yàllay def ay euh, manifestation direct ci ruuxam ak ci sëkkëreem wa aqlihi ak xelam wa qalbihi ak xolam wa suratihi ak jëmmam bi jamii zaat ci booleem jëmm xam nga connectivité boo xam ne réseau bi car doy na lool ñuy connecté sa xel di connecté sa xol di connecté sa ruux d'ailleurs sax connexion bi dem sax bañu Euh, boole ci sa yaram bi yépp kooku li ngay recevoir ci xam-xam bokk nag ki nga xam ne euh, melul noonu du du yem bu ko defee nee na kon diversité bi fi xew yëpp lii la dafa mel ni nit yàlla yi nag xam gi ñu xam lii moo tax du ñu sonn ci ku leeni weddi wala ndax koo xam ne wu digg yàlla ca xëy bu ësal naanul nga bëgg ñëw ba fii itam wax ko loo xam ne nii ña naanoon ñoo ko mën a xam yow yaa ngi bëgg rey nit ñi hmm? wala man bu ma gisee kuy sonn ci ñenn ñi pour ñu gëm yenn cause yi yow kaa nga may def ndax fi ñuy gëmee dadul fii te yàlla itam def na triage am ba pare mais ku mu ci boolewul man ngaa éloquent fii ba boole ko ci hmm? moo tax werante yu bari yooyu vraiment xeet la ci am jot wala itam ñàkk a xam ne nit ñi yëf yi séddoon séddale nañ ko pare jafal xalamu fii daal benn film buñ dawaloon la dañ ko fi répété waat rek mais li xewoon yëpp xewoon na ba pare wax nañ ci darsi bi passé bu fekkee contingent yi jëm safara pare nañ ba pare list bi pare na yonent bi nee na du yokk du wàññeekooti yow nga topp nag liste boobu ne dee di nga bëgg di nga effacer seen tur yóbbu leen fële yow boo watu yow la ñuy far sa tur ndax sa farata yëpp da nga koy mujj a bàyyi loolu boo ko teelee xam rek nga noppalu euh, beneen bi euh, raisul bayan moo doon wax noonu mu ne lii ku ko xësa xamee nii xadis bi anas ibnu malik waxoon du la jaaxal te xadis bi rombana na anas ibnu malik nee na toog nañ ñun ak yonent bi sallallahu alayhi ñu toog nii euh, tabarakallahu mu tibb benn tibb ñu dégg tibb bi di sàbbaal di sàbbaal di sàbbaal bu doon tey benn tibb ceeb euh, ba ñëpp dégg ko assistance bi yëpp mu jël tibb bi jox ko Aboubacar Siddiq nee na Aboubacar tee ko mu dégg muy sàbbaal ci loxoom mu jox ko benn saxaabi muy Omar ñu dégg muy sàbbaal riwaay bi moom foofu la yem après ñu jox ko beneen bi xëy na da respect moo tax tuddul tur turam après ci la noppi kenn déggatu ko mu sàbbal loolu waxoon na ci gannaaw ne du day doog a sàbbal mais mojisa bi mooy yàlla moo yokk volume mu sàbbalam pour nit ñi dégg ko waaye euh, pepp ba xaarul ba yonent bi tee muy soogo sàbbal bi mooy jaafar ibnu muhammad nga xam ne ci ahlu bayti la bokk an abihi nee na sama maam sallallahu alayhi wa sallam mas feebar bi mu feebaree xadis bu siiw la Seydina Jibril ñëw seet si ko indil ko grenade ak tàndarma non non grenade ak raisin ñaari fruit yooyu la ko jël jëlale àjjana def ko ci benn mouchoir ne ko maa seetali ci sa feebar ci la ñuy xamee ne ndekete kon ku feebar soxla na fruit waaye nit feebar nga dem seet ko wax loo ko bëgg ba bëgg rey naka baax na maa ngi dem bu suba bul ñëw suba ndax yow indiwoo dara feebar bi nga yokk <laughs> nit moom bu feebaree jox ko fruit rek donte sax doo ñëw yónni ko xale rek mu lekk ko ndax fruit dafa baax ci nit ki ki feebar dafay perdre vitamine yu baree baree baree baree bare boo ko boo koy seet si da wax ji ndax moom force wax du ko amati hmm? moom compensation la soxla ci vitamine yooyu mu mu manqué nga delloo ko léegi boo ñëwee nag waxtaan ak moom ne non bo boo feebaree da ngay wét par fa fa ñuy waxtaan ak yow yow yaa ngi jëlaat assez d'énergie ci moom teew delloo ko dara xam nga rek moo tax yónnee ko fruit bi sax moo gën di yow di ko wax loo ndax yaa ngi jël énergie yeneen ci bi sallallahu alayhi wa jël raisin boobu naka la ko téye rek mu dégg mu naan subhanallah subhanallah ca kaw mu jaaxle juste rek sëtam Xasan ñëw ay xale lañ mu jox ko ko xale bi jël ko mu dégg mu naan subhanallah subhanallah Xuseynu ñëw daanaka ay seex lañu woon waaye magante nañ un mu téye ko moom it kooku mu dégg mu naan subhanallah subhanallah seen baay al yu dugg ci néeg bi ñu jox ko ko mu naan subhanallah égal euh, maanaam grenade bi ak raisin bi sàbbal nañ ci ñeenti loxo mu yonent bi ak Xasan ak Xuseynu ak baayam Euh, léegi beneen waaye na dugaat ci euh, ci kii bi koo xam ne ci gëble gi la bokk moom naka la affaire bi noppi waxatul moo tax noonu am na de affaire bi noppi waaye xam naa am kersa yonent bi ne ko noonu euh, du problème Jibril nee na ma ta maanaam raisin bi àjjana la jóge moo tax lumière rek lay dunde comme ci lumière la kiyee moo tax bu ko lumière téewee euh, day sàbbal yonent bi nag waxuma lumière waaye ñu ngi bind àjjana ci lumière am léegi Xasan est-ce que du continuité lumière am Xuseynu nag Alioune est-ce que du continuité lumière am mu ne mais bu ci keneen ñëwee rek day fay xam naa waajooju bu yëgoon du dugg ci néeg bi ndax mënoon na dem rek ndax itam ay mag buñ dajee da nga leen di dànd Euh, mais léegi nee na lii euh, dafay firi rek loolu ñu waxoon euh, ba tey yàlla waxaat na beneen aaya ne innahu kaana xaliman xafuuran gis nga aaya boobu bi mu ko waxee ne lépp lu mu bind mu ngi sàbbaal yàlla mu ngi ko tëjee ne yàlla ku lewet la ku mën a jéggale la waaye yooyu maanaam lépp lu yàlla bind mu ngi sàbbaal yàlla ban relation la war a am ak yàlla naan man ku lewet laa kuy jéggale laa ñu ne waaw parce que nee nañ ci ci ci lewetam ci la bindee mbindeef yi maanaam maanaam dafa bëgg a wax ne ndax ku lewet maanaam faveur la vraiment euh, facilitateur la xam nga kii facilitateur la ba pare damay pardonner ci condition bi mu ko waxee dafa mel ni kon am na lu ñu fa déggul mooy dafa bëgg a wax ne loolu dinaa ko may ay nit ñu man di ko dégg parce que mën naa facilité seen dégg loolu kon loolu la tuddul amul lenn lu dul dina sabal yàlla suba ak ngoon yéen yéen a ko dul dégg mais nag facilitateur la mooy égale mën naa facilité probablement ay nit ñu mën ko dégg ba pare xafuuran bu ma leen jéggalul woon seeni bàkkaar du ñu mën a am accès ci njëggal maanaam ci dégg dégg googu wala dëgg ndax bu fekkoon ay waxi bàkkaar la fi wax bu dee damay jéggale war nañ mën a xam ne bàkkaar yi lay jéggale mais espèce yooyu ñuy waxu amuñu bàkkaar te seen sàbbaal yooyu ñuy def yiw la kon bu tëjee xaliman xafuuran kon dafa am leneen lu mu bëgg a wax mooy yow nit mën naa la assister di la baal say bàkkaar di la faciliter yoon bi ba à long terme nga dem bay dégg loolu xoola nitu yàlla yi ni ñuy dégg euh, léegi nag boobu ba tey sa maam Cheikh Omar radiallahu anhu ngi nettali waxu mag ñi léegi nag nee na xultu maa ngi wax nag pour dellu sewat ne wa yag fii fi hadhihi al masala li ma doon expliqué yépp doyoon na ci sax man de guddal naa juste rek pour justifier waxu Cheikh mais doyoon na ci rek antaqana allahu alladi antaqa kulla shay'in bii moom dalilu boppam la eh, yawmal qiyaamati bu yàlla bu yàlla di régler nit ki li muy njëkk a def mooy day tëj gémmiñ ndax bu nit ki commencé di dem ci procès bi rek li muy njëkk a def mooy miim du man du man xam nga du man nag yomb la mais loxo ba defoon jëf ji moom lay la yàllay wax loo nekk yow loxo est-ce que date sangam heure sangam defoon nangam mu ne effectivement man la woon ci heure tel d'ailleurs sax am na loo fàtte woon nii laa defee woon moom loxo yi mooy joxe les moindres précisions nopp bi noonu kii bi noonu gémmiñ gi nag day mer mais dañ ko fekk tëj nañ ko moom yéen a ngi joxe ay ay ay idées yoo xam ne maanaam yéen a ngi joxe ay preuve yoo xam ne bu preuve yi dajee contre moi lay doon te boobaa doo leen ci mucc lan li ma li ma shahidtum alay na lu tax ngeeni ngeeni ngeeni témoin contre moi xaalu ñoom ñoo wax cër yëpp ne antaqana allahu yàlla moo ñu waxloo alladi moom mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay'in la wax xam nga waxul woon waxul gémmiñ gi yàlla mi la waxloo woon kulla shay'in la wax kon ci loo ciy dégge loo gis kon mu ngi wax loo gis rek mu ngi wax yow yaa xamul nag moo tax smartphone yii xew léegi muy tudd les phones intelligents ñoom dañoo tardé parce que ki ñu defal benn caméra de surveillance wala smartphone boo xam ne mu ngi lay caméra mu ngi lay enregistré te yëgoo ko wala ñu ne zaki yàlla maanaam moom dafa intelligent loo ko demandé rek euh, mu mu defal la ko intelligence sam yow sax xamoo lan la <laughs> au delà de caméra yi nga ko defal ak euh, enregistreur yeeg logiciel yi ñu ci def non non intelligence am ëpp na loolu téléphone bi jamono jënk jëndee ba mu quitté ci commerçant bi ba bés bi nga koy njëkk mujj maanaam mujj yor soit que dafa réer mbaa mu yàqu mbaa mu daanu toj diggante boobu loo fi wax loo fi def moom dana ko présenté yàlla moom waxuma waxuma kii de waxuma données yi de yow intelligence am yëgu ko ko hmm? na ngay naan il faut faire très attention parce que moom loo wax da koy enregistré euh, am na données yi fu mu koy def yow fi muy def données sax xamoo téléphone bi jamono ji ko yore ba boo dee deux ans ngeen def trois ans yaa xam ba bi ngeen di tàggoo loo wax loo def foo dem moom témoin lay doon ci moom. yëre yi nga sol nga non sama yére bi vraiment dafa ràpp dama ko bëgg a joxe yére bii bi nga ko jëkkee sol sol ba bi nga koy mujjee sol diggante boobu foo ko fa sol moom ndeke caméra la woon caméra de surveillance la sa sa sa sa lunette yi ngay sol la même chose am nga jaaru boo takk bàyyi woo ko xel sax ndeke jaaru bi yow lay enregistré soo ba guddi et cetera maanaam kon antaqa kulla shay'in lépp lu ne rek mu ngi wax loolu boo ko xasee xam kon di nga yëg ne ndekete papier bi taxawaalu sa buntu kër sax nga koy bale di nga ko balee ak teggin parce que mu ngi lay enregistré mu ngi lay dégg fii nag ku ñu andi woon benn agent secret mu toog sa ñu teel la informé ne bàyyi ko xel agent secret nooy def da nga koy moytu et yow chaise bi nga toog agent secret la moo raw ñëpp <laughs> ah, agent secret xaa du dugg sa néeg waaye ñëli moom <laughs> te ñu ngi ne patakat di la xool rek nga foog ne dara xewul fekk lépp xew na ñu ngi lay jël moo tax ñu ne ku yàlla ku yàb yàlla yóbbu justice nga des fa fexe amu ci moom kay nañu baal rek moom daal nañu baal mais ku mu yóbbu justice ndax élément yi mu am moo bari élément yi mu am moo bari yow wax na ne kiraaman katibin yow ñu ngi la indil ñaari malaaka yoo xam ne ni douze heures de temps dañ ko def ak yow bu ñu demee yeneen malaaka relevé leen ba nga majeure ba bi ngay dee loolu dakkul loolu doyul woon doyul woon vigilance ah mais ñooñu c'est rien à voir ak mbaxane mi nga sol wala kab bi ñooñu ñoo gën a ñoo gën a vigilant moo tax smartphone yi ñu naan non dafa intelligent wala iPhone yi non loo ciy def na ko xam parce que loo ciy def da koy jël yow ñooñoo yooyo mujj mais ñoom ñu ngi jël yeneen yoo yëgul Cheikh Omar ne kon dars bi léegi leer na la ne la daal lépp lu yàlla bind mu ngi wax mu ngi dégg léegi leer na innahu kaana samian basiran qultu mu ne nag wa ida taqarrara haada bu dee nag leer na la wax dëgg yàlla xanaa leer na leer na de éléments yi mu indi yëpp pour confirmer lii mu ne bu dee wattadaxa leer na nañ ci sa xel wa zahara laka mu feeñ sixata kalaami cheikh yi maanaam wiru maanaam crédibilité waxu sëriñ bi muy cheikh na tiyaan yi nga xam ne leer na zuhuran feeñ goo xam ne laa xubaara fii amatul poussière wax dëgg yàlla wata bayyana te leeral naa ko euh, euh, leeral naa jëxlu jëxlu man maanaam ignorance su koo xam ne probablement xat yaataridu man naay contre sax ala cheikh ci cheikh na tiyaan yi bu dee wër na la indi ay élément assez yoo xam ne ni xamee nga ci ne cheikh na wax na dëgg li mu wax yëpp ci alquran la ko teg ak sunna lool leer na ba probablement sax ku waroon a weddi loolu indil naa ci alquran sunna ak a aima lu leer nañ léegi nag nañ delluwaat ci leçon bi nee na fal narja léegi nañ delluwaat ila kalaamina ci li ma doon wax ila ma kunna fii bi sadadi yi liñ nekkoon muy tem bi léegi nag euh, pause boobu mu defoon ci waxu Cheikh mu ngi soog continue continuer nag mu ne su ma léegi nag seen tiyaar yi gannaaw bi mu law leeralee ne ruux yëpp day wax ba indil la ci ay preuve léegi Cheikh mooy continuer je cite Cheikh na wa ida arafta hada faalam anna arwaax jameel mawjudaati fardan fardan min kulli ma siwa allahi taala fi kulli lamxatin min alzamaan mustaxilatun bi umurin la tanfaku anha xata tarfata aynin wa tilka al umuru hiya salaatu alfatixi lima ulik wa fatixatu alkitaabi wa jami alquran wal ismu al aazam alladi xalaqaha bi wal ismu al aazam alkabir wa tasbixu alxaasu biha wa qawluna al ismu alladi xalaqaha bihi id likulli ruuxin ismun min asmaa illahi taala xalaqahu xalaqaha wa bihi qiwaamuha la tashriku ruuxaani fa akthar fi ismin waxidin fi ismin waxidin fa akthar fi kulli tarfati aynin fa akthar fi kulli ismin waxidin fa hiya fi kulli miqdaar tarfati aynin tadkuru hadihi al umur bi tamaamiha fa ida arafta hada arafta hada ma tadkuruhu min bacdi hada wa hada awaanu shuruuci fi lmaqsuud fa sallim sallim al umur wala tankir Cheikh na Tiyaan nag nee na euh, boo xamee ne ruux yëpp dañuy wax ruux yëpp euh, am nañu xam-xam ruux boo gis mu ngi sàbbal yàlla kenn par kenn benn tiers bu nekk minute bu nekk amul benn ruux buy am rupture ci sàbbaalam lu toll ni tarfatal ayni te loolu ñuy sàbbal daf cee bokk salatul fatiha da cee bokk euh, fatihatul kitab la ñuy sàbbal ñoom ruux yi alquran bokk na ci Euh, ismu biñ ko binde moom ndax ruux bu dafa am ismu bu booy booy zikr yow nga xam ne ci liñ la binde euh, ak ruux bu ne mën naa sàbbal ismullahil azam dina sàbbal itam euh, dog biñ ko jox moom rek nga xam ne yàlla mu ngi ko binde ci moom ndax benn tur benn ruux bu ne am na tour yàlla boo jagoo boo xam ne beneen ruux du ko zikr kudul yow moo tax ku quatre-vingt-dix-neuf noonu la yàlla am xanaa yi feeñ ci alquran ngay wax waaye bu fekkee boo bëggoon laaj ñaata tour la yàlla am nel selon chiffre ruux yi te ruux yi kenn amul luñ toll te benn ruux bu ne mu ngi zikr lu moroomam xamul sax ba koy zikr nee na moo tax benn ruux du zikr beneen tur maanaam benn ruux bokkul ak moroomam zikr ndax bu boobaa day mel ni yàlla dafa tële te yàlla bu bindee nang cent cent des centaines de milliards d'espèce benn espèce bu ne fekk na ko mu utal ko tur bu mu koy tudde moom bu bokkul ak moroomam moo tax benn ruux bokkul ak moroomam euh, zikr moo tax may wax ne koo ne diw moo doon diw waxin la waaye kenn doonul kenn kenn ku ne sa bopp rek la kenn ku ne tu es unique nee na Cheikh nee na nag boo xasee xam loolu nga léegi di nga dégg nag li ma bëgg a jàngale li mu bëgg a jàngale jàngale ko ko ba tey mu ne léegi nag bul ko weddi na nga gëm loolu te xam ne fa inna axadnaahu ñun ñu ngi ko jëlee min al waji alladi laa yati al batil min bayni yadi wala min xalfi Cheikh na Tiyaan nee na yow mi bëgg a weddi loo man man weddi lii ma la nar a wax léegi ci ngëneelu salaat fatiha bu ko weddi de ndax xam nga ne maa ko jëlee ci ki nga xam ne nii du wax lu dul dëgg laa yantiqu anil hawa kan la muy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te waxam moo gën a leer jant kon loolu rek laa la bëggoon a indil préalablement mu ne nag wa am amma martabatu zahir mu ngi jëfee ndigalu maamam euh, xam naa yàlla may na ko moom ndax ba ko yonent bi wax mook moom rek la woon moom it ba mu koy bind di ko dicté xëy na mook kam ko doon dicté rek la yàlla dogal Mawlaana Xaaji Omar Fuuti indi ko fii ni ko yeneen téere yi indee gis nga léegi tey yàlla nga koy diffuser ci àdduna bi yépp moo tax borom ndigal bu la santé jëfel rek ñan ñoo ciy bénéficié wu yow sa yoon bu ci ne yow rek lañ koy wax mais yow dinañ dem ba àdduna balaa tukki des centaines de million de personnes dinañ jariñoo ci lañ la digaloon cheikh nee na ndigal li mooy salaatul fatiha dafa am martaba zahir loolu leer zahir mooy li nga xam ne moo feeñ mu ne mahma qara'aha ahadun bi shartiha kataba allahu lahu fiha an yuxaza jamiu al azkaar min tasbixin wa tahlilin wa takbirin wa tasbixin wa istigfaarin wa salaatul alayhi wa qiraatu alquran wa gayruhu min alkutubi alilahiyati kullaha kullaha misl altawrati walinjil mathalan min awali manshai alaalam ila buruzi tilka alsalati min aldakiri wa tujmacu tilka aljamciyatu almadkura wa tutdaacafu sittata alaafi marra summa tuxsabu alsinati jami almaxluqaati min kulli ma siwa allahi wa tutdaacafu fiha bitilka aljamciyati bacda mudaacafatiha sittamiati ala fi marwa tatadaafu aydan ala adadi alsinati jamii alawalimi min kulli ma siwa llahi summa tatadaafu mudaafatan thalithatan ala qadri martabati kulli lisaanin fa inna min al alsinati man lahu man lahu min dikrihi man lahu man laysa lahu min dikri illa marra waxida hunna kullu lafdin wa fihi man lahu atadaafu miata marratin fi kulli kalimatin min kulli dhikrin wa fihim man lahu asharatu alaafin wa fihim man lahu alfu alfu ila asharati alaafin alfin ila miati alaafi alfin ila ma wara dhalik mimma yaksuru dhikruhu summa tuxsabu kullu lafzatin ala xiddatiha bacda tadaacufi almadkur wa yajri alqaanun bi sawaabiha ala qadri dhikri ma rusima fi shuruuci min kulli salaatin alayhi wa xawaasuha fi shuruuci wa kullu salaatin bi xawra wa qasrin fi ljannati wa ashru darajatin wa ashru xasanatin wa maxwu ashru sayiatin wa taa'iru alladi yaquumu biha ala surati ma dukira fi lxadis yusabixu lillah yusabixu allah taala ila yawmi alqiyaama wa thawaabuhu lilmusalli wa ashru salawatin min allahi taala min jami almalaikati wa hadihi salawatu min allahi fi gayri allati taati fi lmartabati albatinati fa inna tilka laysat hadihi wa fi kulli salatin aydan yaxluqu minha malakun yanghamisu fi bahri alxaya summa yaxruju eh, yantafidu fa yantafidu fa yaxluqu llahu min kulli qatratin qatratin minhu malakan yastaghfiru llaha lilmusalli ila yawmi alqiyamati fi kulli salatin thawabu arba'ati mi'ati ghazwatin wa thawabu arba'a mi'ati hajjatin maqbulatin wa amma kullu tasbihatin wa tahmidatin wa tahlilatin fa kulluha fiha thawabu alquran wa amma sawaabu alquran fi hada gayru ma inda ahli zahir sawaabu alquran fi hada annahu law ijtamaat al azkaaru kulluha min kulli ruuxin fi alaalim fardan fardan min ayi dikrin kaan wa jamiu asmaa illahi taala zahira wal baatina wa jamiu alxasanaati min jamiu almawjudaati fi alaalam fardan fardan wa jamiu alibaadaati fi alaalam min jamiu alarwaaxi fardan fardan wa jumiat hada sawaabu alladi dakarna kulluhu lam yucaadil sawaaba xarfin min alquran wa hada fi gayri alfatixati wa ama fi lfatixati fa sawaabuha fiha sawaabu xatmatin min alquran kaamilatin fi kulli maratin wa fiha aydan fi kulli maratin minha min alxuuri walqusuuri alfu alfu xawraa yaani alfu alfu thumma alfu alfu uxra thumma sitta miati alf wa sabca miati alaafin wa kasruha fi hada alcadad kulluhu kaamilun min alxuuri walabkaar wa misluhu min alqusuuri wa fiha sawaabu qiyaamu leylati alqadr kaamilan wa fiha aydan aktaru ma sabaxa ma subixa bihi rabbuna subhanahu wa taala fi jamici kawrati alaalam min jami alazkaari kulluha wa jami alquran min kulli taalin wa min kulli ruuxin wa min kulli ma siwa allah wa hada kulluhu fi alfatixati min kulli qaari'in laha والأذكار المحسوبة في كورة العالم من كل روح من أول نشأة العالم وقت بروز صلاة الفاتح لما أغلق من ذاكرها وهذا الذي ذكرنا ذكر في الفاتحة بعد مضاعفتها بالمضاعفات الثلاثة التي تقدمت وكل سل سل سل سلسلة وكل سلكة من القرآن أيضا من كل قارئ من منشأ العالم إلى وقت بروز صلاة الفاتح لما أغلق من ذاكرها تتضاعف أيضا تلك السلكة من القرآن من كل تال على قدر المضاعفات الثلاثة المتقدمة ويكون حكم ثوابها tilka silkati ala qadri ma zakarna anifan fi thawabi alquran inda ahli zahiri wa xuz bi jami alazkar hada alqiyas wa hada almihya واعمل به في المضاعفات الثلاثة المتقدمة ولا يستثني من من هذه الجمعية التي في الصلاة الفاتح من جميع ما ذكر في القرآن في الفاتحة والقرآن وجميع الأذكار إلا الاسم الأعظم وأذكاره صلى الله عليه وسلم فلا مدخل لهذه لهذين في صلاة الفاتح لما أغلق li ulwiha lakin bi xasabi lisaanihi sallallahu alayhi wa sallam ma alsinati al akwaan fi lmudaafati fa innahu lahu sallallahu alayhi wa sallam miati alf lisaan wa arbaatun wa ishriina alf lisaanin wa kullu lisaanin min alsinatihi sallallahu alayhi wa sallam ida jumiat lahu ayatun waxida min alquran wa tasbixatin waxidin min ayi dikrin lam yucaadilha dikru jamici alcaalam min kulli dikrin wa tilaawati alfatixati walquran min awali manshai alaalam ila nafxi fi suur wa min kulli ma dakaruuhu min kulli ma qara'uhu qur'anan wa fatixatan wa min kulli ma cabaduuhu min awali nashati min awali alaalam wujudan ila nafxi fi suur walam yucaadilu tasbixatan waxidatan min tasbixihi aw ayatin min tilaawatihi fadlan an alfatixati summa bacdahu sallallahu alayhi wa sallam kullu insaanin ala qadri mablagi zawaabihi fama asa an yakuna al amru ida xusiba aljamciyatu allati dakarnaha qabla kulluha ila lisanin waxidin min alsinatihi wa ma asa an yakuna sawabu dalika fa kayfa ida udifa aljamciyatu alcuzma ila kulli lisanin min alsinatihi sallallahu alayhi wa sallam fa ma asa an yabluga sawabuha wa kadalika lisanu abi bakr haysu yaqulu jibril li nabiyina alayhi salatu wassalam law xaddastuka bi xasanati abi bakrin munzu umri dunya munzu umri nuux ma labisa nuux fi qawmihi ma nafisat fadailu umar wa inna umar la xasanatun min xasanati abi bakr fama asa an yakun amr ida tala abu bakr radiallahu an tilka aljamciya kullaha bilisani wa kana zawabuha fiha ala qadri rutbati wa ata dalika kulluhu li saxibi alfatix lima ulak fama asa an yakuna zawabuha kadalik fi almalaikati alaalina alladina hum wara alarshi hum wara alarshi ida dukira waxidun minhum tilka aljamciya bilisani sittati alafi maratin wa hum abcadu min abi bakr bi kathir laa xasala lahu wa kadalika in tala kullu lisaanin min alsinatihi sallallahu alayhi wa sallam tilka aljamciyatu sittata alaf fama asa an yuxsaba zawaabu wa kullu lisaanin min kulli nabiyin yatlu tilka aljamciyati kullu lisaanin minhum sittatu alaafi marratin wa hum abcadu min almalaaikati alaalina wa hum xaarijuuna an alxasra wal adad wa hada sawaabu kulluhu bi tamaamiha fi kulli marratin min salaati alfatix lima ulik fanzur maada jumiat min alsawaabi ila axiri martabatiha zahira Mawlana Ahmed Tidiane radiallahu anhu yàlla ñu ko yàlla fayal wax dëgg yàlla la ko maamam santoon def na ko waaye pour gàttal rek li mu bëgg a wax ndax xaw na compliqué lool te bari na lool waaye yow mi déglu rek pour nga mën a xam salaatu fatiha la wax dafa am ñaari martaba ni nga xamee ne fatihatul kitab noonu la amee ñaari martaba loolu jarul euh, soril ndax yére bi nga sol sax ñaari phase la am dafa am loo xam ne biir bi la ak loo xam ne biti bi la arab nag toujours bu tuddee biti ñun uute nañoo ak ñun maanaam ñun toujours biti moom la ñuy gën a favoriser biir bi arab nag li valeur lool lool ba kenn mënu ko imaginer moom lay dugal ci biir li ngay gis mooy biti bi nga xam ne moom nga mën a euh, euh, xam mu ngi mel ni rek tabaarakallahu ku doon jënd saaku ceeb dina ci doy rek ñu tibb benn tibb ci saaku ceeb bi jox la loolu noonu moom mooy échantillon li ci biir waaye est-ce que moo tolloog li ci biir yëpp ndax loolu ñu la tibbal xam nga mënu togg ceeb jàppal na nag euh, saaku ceeb bi ëppe na loolu lu tolloog boo ko doon tibb junni yoon wala téeméeri junni yoon par loxo par loxo saako bi lu des noonu dina fa toll du dëgg noonu nag la saat fatiha mel saat fatiha leer la ko xam ne nii maanaam li ñu ci tànq ci biti andi ko mooy yow li nga mën a xam la fait yaa ngi koy mën a dégg di nga comprendre rek loolu jàppal ne zahir bi la le fait yaa ngi ñaan say soxla ci barki saat fatiha muy faju rek loolu zahir bi la mu ngi mel ni saaku euh, bu mag boobu ñu tibb ci benn loxo rek jox la Euh, nga jàpp ne jeexal nga saako bi fekk tàmbalee ko waaye réyaayu li tax ñuy jàngale zahir bi mooy réyaayu zahir bi ci ngay xamee kon réyaayu baatin bi ndax bu fekkee wér na ne bi moo gën a rëy fuuf bi teew zahir bi si giiru dund boo ko doon jàng doo ko matale war ngaa xam ne kon la nëbbu moom kenn xamul lu mu toll beneen bi nag xel moo koy mottali mooy la nëbbu ndekete dafa am meneen moom it leneen lu mu nëbb muy baatinul baatin bi ku mënta xam nag baatin bi xaw ma fooy xamee baatinul baatin bi mais ci déggan gi nga koy comprendre yonent bi nag wax cheikh mu jàngale martaba zahir bi loolu moom nee na mu koy tàmbali gannaaw bi mu fi leeralee nee na yow mi nga xam ne taalibe nga boo jàngee benn salaatul fatiha te am ci ndigal muy ndigalu cheikh na tiyaan yi ndax moom la yonent bi jox ndigal pur bi moom moo koy jox ku koy yore ba addunay tukki nee na boo jàngee benn bi wér na ne waxoon nañ ne lépp lu dul yàlla xam nga yàlla moom kenn du ko boole ci dara mais boo tegee ne yàlla yowul masalul aala lu dul moom lu dul moom ci créature bi euh, wax na gëm nga ne yusabbih lillah maa fi samawati ma fil ard lépp lu yàlla bind mu ngi sàbbaal amul benn cerse boo xam ne noppi nañ lu yàlla bind nag léegi kon lu yàlla bind xaw ma kañ nga judd waaye lu yàlla bind avant ngay judd gëmal ne mu ngi sàbbaal yàlla ñu ba bi ngay juddu yow ba bi nga toogee yow nag boo zikree benn salaatul fatiha la dale foofu yàlla bind lépp luñ fi mas a sàbbaal mbaa ñu sant ko fi yàlla mbaa ñu màggal ko fi mbaa ñu jéggalu ko yàlla mbaa ñu julli ko ci yonent bi mbaa ñu jàng ko fi ci alquran moo xam ci téere yu njëkk ya la wala ci téere yii muy injil ak tawraat ak nangam ndàngam ba yàlla man sosee luy am ba yow fi nga toog di jàng salaatul fatiha Euh, loolu lañu wax ne dañ koy multiplier par six mille fois fay la ko loolu loolu leer na léegi suñu paree ci fay googu mu mel ni benn compte la ubbil nañ la ko viral nañ la ko loolu defe naa loolu la lay firi mooy lu jaa lu masa jaamu yàlla yow ci sa benn sage fatiye ëppalee nga ko six mille fois de plus te benn espèce bi rek bu dee ba ko yàlla bindee ba tey mu ngi tudd yàlla waaw moom ñaata milliards la ko tudd boobu ak léegi mais yow loolu yëpp la ñuy co co multiplier ko la multiplier ko par six mille fois def ka sa benn compte bu njëkk bi amoon nag benn compte boobu benn la cheikh nee na suma taxsibu alsinatu almaxluqaati min kulli ma siwa allahi wa tutadaaf tilka jamiyatu baada mudaafatiha sittata alaafi marra ala adadi jamii al awali min kulli suma tudaafu léegi ñu defaat beneen multiplication xam nga yow fay nañ la selon nombre bi léegi mais fayaguñ la faveur bi faveur bi lépp lu lu dul yàlla léegi deuxième multiplication bi dañuy jël lu dul yàlla ba yow foofu nga toog jàng benn salat fatiha ñu ñu compter leur nombre de làmmeñ làmmeñ làmmeñ yu ñu am xam nga làmmeñ mooy sabal te yow xam nga ne malaaka yëpp du ñëpp am benn làmmeñ rek am na malaaka yu am junniy làmmeñ am na yoo xam téeméer am na ñoo xam ne ña néew néewle ba néewle daal am na ñetti làmmiñ baalu ko ëpp léegi dañuy compter dañuy comptabiliser selon làmmiñ yi làmmiñ yi ñu ne temps de làmmiñ loolu loolu kenn xam na nu mu toll hmm? mu ngi mel ni làmmiñ yi bul bul bul bul laajte mooy tuddee niveau de comptage de vote vote bu ñu doon voté kan mooy gagné ki ëpp ay ay voix làmmiñ yooyu nag la ñuy wax maanaam yow bi ñu la fayee six mille yooyu jëkk dañ la ubbilaat beneen compte léegi di xool yow combien de voix avant ngay jàng saat fati moo mas a existé loolu kenn xamul ka lan la ñu ne tant de voix la ñu fayaat la loolu ci deuxième compte bi Cheikhu Tiyaan nee na après nag dañuy jëlaat troisième multiplication ci benn saat fati bi nga jàng ñu compté waat nag euh, selon voix yi seen poids xam nga tey euh, citoyen bi benn voix bu nekk benn voix rek lay tekki mais bu dee yàlla demeewul noonu am na voix yoo xam ne donte benn voix la mais équivalence su dix mille voix lay doon ñu soog a comptabiliser chiffre yi maanaam maanaam ni ni voix yi toll Cheikh nee na bul foog ne voix yëpp am am na ñoo xam ne benn voix rek lañ am te mooy jullit yëpp képp ku ne ashhadu an laa ilaha illallah wa na anna muhammadan rasulullah bindal nañ la ku ko wax benn yoon wala ñu fay la ci fukki yiw bu dee benn voix nga am loolu moom mooy règle bi ñëpp nag mais am na ñoo xam ne seeni voix dem na ba yàlla multiplier plier ko ba seen benn baat bu ñu wax ñoom seen voix junni voix lay lay lay lay lay lay doon équivalence am kon xam nga kon favori mu ngi ñëw nee na am na ñoo xam ne seen voix ñoom dix mille lay weti am na ñoo xam ne seen voix te loolu neex naa gëm parce que ku ne xam na ne cinq francs ak euh, cinq euros defe naa benn ah, cinq cinq rek la de ah waaye cinq livres ak cinq dollars defe xam nga ne du benn hmm? cinq riyal ak tabarakallahu cinq euh, xaalisu Guinée xam nga du benn léegi noonu mu mel yow comme cinq cinq le rek lan moo tax yàlla kon warul def loolu effectivement benn voix cheikh nee na mën naa dem ba doon équivalence su dix mille voix mu ne am na ci voix yi ñoo xam ne man lahu alfu alfi doon na un million de voix maanaam un million d'équivalence am na ñoo xam ne seen benn voix mën na doon ba un milliard ci équivalence am na ñoo xam ne seen voix mën na dem ba doon quatre trillions de d'équivalence am na ñoo xam ne seen voix yàlla rek rek moo xam nu mu toll nee na comme yonent yàlla Muhammad yonte yàlla muhammad bu ne subhanallah kawnu bi yëpp bu ñu waxoon loolu seen giiru dunda duñ dab bennam te ci benn làmmiñ la waxe loolu dina ci ñëw ci kanam léegi nag kon wér na ni kon voix yi tolloo ñu léegi troisième multiplication mooy équivalence voix yi lañ lay fayat sëriñ bi loolu nu mu toll hmm? nee na loolu kenn xamul nu mu tollu euh, léegi léegi nag ñu soog laa fay yow yañ dikki lañ diggee woon ci salaatu ala bi yooyu moom yooyu jotoon nga ko dugg ba pare mooy salaatu ala bi ku ko julli benn yoon yàlla dina la dina julli ci yow euh, euh, non fukki yoon fukki yoon mais yow comme waxoon nañ ne la multiplier multiplier nañ la bépp salaatu ala bi bu la précédé par six cent mille fois par benn benn yooyu la ñuy julli par fukki yoon ci julli yàlla hmm? te nee na déggoon nga bi ma lay nettali maanaam melokaanu picc boobu nga xam ne moom làmmeñ yi mu am rek gis nga ko euh, daanaka trente zéro la un la plus trente zéro ak cassure bi ci topp yépp nee na itam buñ la fayee six cent mille yi euh, benn bu nekk gis nga dina doon équivalence su benn picc boobu maanaam ak yi ci aju yëpp muy benn saat fati bu ne six cent mille picc yooyu lay doon te benn picc bi ba yowmal qiyaamati day sàbbaal wa sawaabuhu lil musalli te yool bi ci julli ci yonent bi moo ko moom nee na bokk na ci faveur yi nga amoon dès le début mooy képp ku julli ci yonent bi ak foo ko mën a jullee mboolem contingent malaaka yi dañuy julli ci yow fukki yoon du dëgg loolu itam da koy am ci faveur boobu de même que yàlla dina julli ci yow comme loolu ni mu leere cheikh nag nee na yii ma lay wax yëpp c'est c'est n'a rien à voir ak martaba batin bi non yii mooy zahir bi yii may expliqué ni multiplication yeeg favori yeeg yëpp dugaguñ ci baatin ndax baatin bi mais li muy wax ni ci moo lay xamaale moo lay xamal martaba batin bi ndax comme zahir bi moo àgg fii ci kawe mu ne seen rien à voir ak martaba baatin bi mu ne wa fi kulli salatin aydan yaxluqu minha malakun yatanafasu fi kul bi baxril xayaa wax nañ ne la bépp salaatu ala nabi bu la précédé woon yàlla dina julli maanaam maanaam dina ko multiplier six cent milles ñu fay la ko yow ci salaatu euh, euh, ci benn salaatu fatiha bi mais benn salaatu ala bi bu ne ci yooyu yàlla dina ci bind benn malaaka bu weex tal boo xam ne day soobu ci baxrul xayaa baxrul xayaat benn géej la goo xam ne c'est la maire de la vie source de la vie nga xamee ku ci sangu doo deewati mukk léegi malaaka boobu day jug bu ci duggee soobu ci bu doon tey dañuy wax daf ci nuur bu nuuree ba ba fees ci day génnaat après fa yantafidu dafay fëggatu mel ni picc buy fëgg ay laafam ñu wax ne benn toq bu nekk bu wadd ci laaf ji rek ci toq leer yooyu yàlla da ciy bind benn malaaka boo xam ne jëmm malaaka boobu lay nuru moom lay melool ba pare ñoom ñu sant leen ñuy julli ci yonent bi ba abadan julli googu yoolu ko defoon salaatu ala nabi ba lañ koy fay benn salaatu ala nabi bu ne am nga ko te benn salaatu fatiha bu ne doo xam ñaata lañ la ciy fay ci salaatu ala mu ne bokkul ak bokkul ak c'est rien à voir itam benn salaatu ala bu ne waxoon naa la ne yàlla dina la ci fay fay quatre cent euh, euh, bataille <laughs> loolu c'est rien à ci salaatu ala nabi ne bu ne di nga am lool te benn bataay bu nekk yoolu quatre cent xaj la ak quatre cent umra kooku c'est rien à voir ak martaba batin bi am nga lool bokk na ci ngëneel yi de même que euh, am amaaku yoo xam ne yàlla nangu na ko pare léegi nag bii nga xam ne nii mooy boo jàngee salaatu ala euh, salaatu fatih bépp sàbbal ak tasbix ak zikr boo xam ne mas nañ koo zikr ci lu la précédé xam nga boobu lañuy ñuy par six mille fois nee na zikr yooyu ñu tudd nag ne ci multiplication bi la bokk xamoo ne zikr yi alquran da cee bokk alquran du zikr wa innahu la zikrun laka mu ne alquran boobu nag moom rek doyoon na sëriñ bi taxaw fa di leeral mu ne alquran boobu ma wax ne dafay bokk ci multiplication salat fatiha yi ñu lay multiplier par six mille fois mu ne bokkul ak alquran bii ñu xam ni ci zahir nga xam ne boo ci jàng ñu fay la fukki benn araf bu ne fukki yow ne nee na waxuma boobu de boobu mooy ëllu zahir bi mais bi may wax nii mooy yow kaamil biñ lay fay mooy boo xam ne yoolam boo dajale woon lu dul yàlla boo ko génnoon bépp espèce bu yàlla mës a bind ba yow foofu nga toog di jàng kaamil boobu boo dajalee woon yooyu yëpp seeni sabbal ak seeni tasbix ak seeni euh, zikr boo ko dajale woon wecciwul benn arafu alquran boobu maanaam kaamil boobu kaamil boobu yow ñu lay fay te mooy bii rek nga xam alif lam mim zalika kitab mais bii yow fukki yiw lañ ciy fay mais kaamil moom bi muy wax ne moom lañ lay multiplier par six mille fois d'ailleurs dama ne askar yi masa xew laa wax ba àdduna tukki boo ko jëlee wecciwul benn arafu kaamil boobu may wax boo jëloon àdduna bi yëpp jël arwaax yi seen zikr fardan fardan nga jël mboolem turu yàlla yi ñuy zikr yi yu zahir yeeg yu baatin yi ak mbooleem yiw yi mas a xew ci àdduna bi ci alam bi fardan fardan wa jëmeen ibadaat yi ak mboolem jaamu yàlla yi ci moo moo xam yi ruux yi def ak yi jëmm yi def yooyu yëpp wa jume at ñu dajale zalika sawaabu yooyu yëpp lazi zakarnaaw lam yu aadil wecciwul sawaabu xarfin waaxidin benn benn araf min al ci kaamil bii ma lay wax bii nag lañ lay faye six mille ci benn saat fatiha bu ne mais kaamil bii ñu lay fay itam attention bul bul faati fatiha ba bokk ca de fatiha ab kaamil boobu ndax ku ne xamee fatiha rek moo ëpp doole kamil bii wala dëgg fatiha mu ne kon du ma naan laan dinañ la ko fay six mille te moom benn arafam rek gis nga wecc na liñ masa jaamu yàlla yépp mais fatiha mu bokk ci mu ne ndax bu dee bi euh, biha sawabu jami xatmatin min alquran fatiha bi rek équivalence kaamil boobu la encore mu ne te léegi kaamil boobu ñu la war a fay ci benn unité wu salaat fatiha bu ne par six mille fois loolu lañ la wax ne bu dee ci kaamil boobu araf bu nekk ca lañ la fay fay nag ci araf boobu un million ci xuurul ayni benn xuurul ayni bu ne benn lay dëkk muy ñaata château un million araf bu ne nag ba kaamil ba jeex ab fatiha ba itam équivalent su la ah xam nga ko kéemal la mu ne yaani alfu alfin suma alfu alfin uxra <clears throat> suma sitte miati alfin sëriñ bi yaatu na sax ba wax ko wax ña combien de château lay doon ndax moom xam-xam kenn xamul fu mu yem moom Cheikh Tidiane mu ne d'ailleurs boo ko xoolee dina la jox un milliard six cent millions ci ay nombre nee na kasur bi jarul ma ci attardé wu mais un milliard six cent millions dina la ko jox boo jëlee arafi alquran multiplier ko ak euh, un million yële ma wax dina la jox un milliard six cent millions minimum yoo xam ne ay nombre de château la château bu ne am na xurul ayni bu daq ci àdduna bu fa nekk nee na loolu yëpp moom la ñuy te ñoom ñëpp ay jànq lañu doon ñu rafet lool wa fiha sawaabu qiyaamu laylatul qadri bokk na ci liñ lay fay mooy bépp bi unité boo def <coughs> ci alquran boobu dinañ la fay itam ci kaamil boobu yoolu ku taxawal laylatul qadri ba mu mat sëkk waa bu dee ci kaamil boobu lañ la fay six mille léegi yow ñaata laylatul qadri nga taxawee six mille fois kon kooku ku la fekk ci nga naan dangay ngay màggal leetu xadri xam nga wax dëgg yàlla yiw rek ngay dabu teew sa lazim la ñaata saat fatiha la cent bu fekkee yow benn saat fatiha bi six mille leetu xadri la téeméeri saat fatiha yi nga lazime ñaata la six cent mille leetu boo ko defee junni yoon defoo six millions leetu xadri six millions six millions leetu ku ko def war a tëddi ndax moom leetu xadri unité bu nekk xayrun min alfi moom encore kooku kenn xamul lu mu toll nee na wa fiha bokk na ci liñ lay fay ci saat fatiha boobu wala kaamil boobu aksaru ma sabaxa bihi rabbuna fi kawrati alalam min jami azkaari kulliha min wa jami alquran min kulli taalin min kulli ruuxin ma siwa allah te kaamil boobu wér na ne comme benn araf bi moo ëpp lépp luñ mas a jaamoo yàlla kon lépp luñ mas a jaamoo yàlla yàlla dina la ko fay par unité ci kaamil boobu te kaamil boobu lañ lay fay par six mille fois nee na loolu yëpp nag bokkul ak fatiha ba bu dee fatiha ba itam mu tolaat noonu te loolu lépp loo xam ne lu yàlla bind la depuis existence bi xew ba bi ngay jàng yow salaatul fatiha benn per boobu lépp lu la précédé ci yiw noonu lañ koy multiplier déjà ubbiloon nañ la ñetti compte fële benn compte bi mooy benn saat fatiha bi nga jàng gis nga liñ la ci fay mboolem lu la mas a précédé ñu jaamoo ko yàlla rek ci tasbix dugalal nañu après ñu comptabiliser la nombre làmmiñ yi muy nombre voix yi euh, troisième bi mooy ñu comptabiliser la nombre favori yi hmm? muy caisse noire yi gars yi denc yépp ñu favoriser ko jël ko jox la ko nombre voix yi wax na la ne tolloowul maanaam maanaam favori am na ñoo xam ne seen benn làmmiñ équivalence bu benn làmmiñ am na ñoo xam ne ñaar la am na ñoo xam ne dem na ba dix mille am na ñoo xam ne dem na ba un milliard am na ñoo xam ne seen làmmiñ kenn xamul chiffre bi ku dul yàlla nee na yooyu yëpp bokkul ak nag liñ lay fay ci six mille ci ku jàng alquran ak mboolem tasbix yi te kaamil boobu bokkul ak bii yi nga xam moom ndax benn arafam rek euh, yóbbaale na mboolem lu ñu mas a jaamu yàlla nee na ak lii yëpp nag yaa ngi ci martaba zahir bi ba tey Cheikh Tidiane wax batin moom kenn mënu koo xam yaa ngi ci martaba zahir bi martaba zahir mooy lan foo jàngee salaatul fatih boo ko yëgee boo ko yëgul am ci ndigal am nga ñetti yiw yuñ lay fay yu bokkul ak yi may wax nii mooy dinañ la fay ku ku am ngëneelu euh, totalité wu martaba zahir bi xam nga ka xamoo ko amul problème soo paree ñu fayaat la ku am totalité wu martaba batin bi après ñetteel bi ñu fayaat la ku am totalité martaba baatinul baatin bi léegi nag loolu lañ wax ne yow ñàkk gi nga koy ñàkk xam wàññiwul dara du dëgg ndax wax dëgg yàlla président de la république bu juree doom tey euh, liir boobu xam nga xamul ne baayam président la mais lu mu ko wàññi ba la amee ah bu dee doomu roi sax gis nga léeg-léeg dañuy feete ne am nañ prince bu juddu wala di ko feete te moom dënd yeeg yëpp yëgu ci dara te xamul ne moom la njabootam di feetal te mu ngi ci ay bersoom yow mi jàng saat fatiha itam ñetti ba yëpp am raafale nga ko te yow yëgoo ko te benn unité bu nekk tabaarakallah xam nga kon en réalité nag bu ñu xoolee rek entre nous ku ne la boo lazimee benn yoon di nga dem àjjana yabu la kooku la xam nga kooku boo lazimee da ngay dem àjjana kooku warul la ko woon wax boo xoolee te yow ñetti martaba yëpp ba zahir bi rek mënoo ko jeexal waxatuma la batin bi Cheikhu Tiyaani ba tey mu ngi wax nee na alquran boobu ñu lay fay nag boo ko jëlee nga multiplier ko par trois fois moom it alquran dafa am martaba zahir am martaba batin am martaba batinul batin muy ñetti maratib bi boo ko dajalee euh, ñu fay la ko ci mart euh, maanaam salatul fatih muy juróom benn junni yoon loolu la kenn xamul lu mu toll bokkul ak yiwu fatiha bokkul ak mbooleem asma yi mu indi rek benn précision bu am solo muy trois comptabilité yële ñu la doon fay muy nombre des voix mu ne nombre des voix yi xam nga lu dul yàlla rek ci nombre des voix bi la bokk ndax buñ xosee di voté ki xalifa ki kii gendarme ak daal ku ku joxe voix daal voix la mais ci nombre voix yooyu def ci amaat benn problème mooy euh, voix yi yonent bi bokku ci Cheikhu Tijaan nee na yonent bi am na cent vingt quatre mille voix cers bu ne benn voix taxawul ñëpp a ngi daw sallallahu alayhi wa sallam cent vingt quatre mille voix yonent bi am na ko ñuy laaj nag ndax day bokk ci comptage bi wala déet Cheikh ne effectivement yonent bi dinañ ko compté waale yow mi ñuy fay yow mi tudd Ibrahima wala mu nga tudd Moodu julli ci yonent bi bu ñuy compté dinañ compté wale voix yi mais en tant que chiffre lañ koy compté cent vingt quatre mille plus nangam nangam mais yonent bi nee moom benn voix am benn bi yonent bu jékki-jékki woon ne alham ne subhanallah nee na bi tasbihatin wahida benn subhanallah bu ko yonent bi waxoon ñu arrêté humanité ba yàlla sosee luy luy sàbbal yàlla ba foofu ci cent vingt quatre mille voix yi benn bi rek la utiliser ne subhanallah bu ñu dajale woon lépp lu ñu fi masa jaamu yàlla du dab un sur milliard ci benn subhanallahu yonent bi problème am na te moom yonent bi ba ko yàlla bindee ba tey noppiwul ba àddunay tukki te moom cent vingt quatre mille la ci am te benn làmmiñ bu ne noppiwul kon est ce que yow mën nga dugg ci comptage boobu yow mënoo ci dugg raison de plus sax yow yi ngay li ngay def yëpp ak li lay fay yëpp ku ko moom yonent bi kon yow mënoo ci dugg mais nag dinañ teewul ci manduk yàlla dinañ limaale maanaam Euh, chiffre làmmeñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk na ci euh, comptage boobu doy na ci rek dinañ limaale làmmeñu malaaka yi te malaaka yi kenn amul nuñ toll te bul foog ne seeni voix ñëpp a tolloo nee na nit ñi tolloo ñu xoolal rek Aboubacar Siddiq ku ko gën a baax amul Aboubacar Siddiq Seydina Jibril ñëw na ci ci bi sallallahu alayhi wa sallam di xool Aboubacar ba yàgg yëngal bopp bi nekk xam nga prophète bi ñuy wax Nuux yonent bi ne waaw mu ne ko lu mu dund ci xeetam mu ne ko temps mu ne ko bu ma toogoon fii mag yow di la wax ngëneelu Abu Bakar yi mu am ci yàlla astaghfirullah di la wax ngëneelu Omar ibnu Xataab bii toog sa kanam di la wax ngëneelu Omar ibnu Xataab lu tol ni dund yonent yàlla noox un dixième bi duma ko mën a jeexal yonent bi tégg miñ ni ko ah Omar Omar am na ngëneel lu toll noonu mu nekk ko et li ci gën a reelu Omar benn parti la rek ci ngëneelu Abu wa inna omar la xasanatun min xasanati abou bakar maanaam une bien la rek benn benn un bien la ci parmi les bien de abou bakar nga xam ne kon làmmeñu bokkul Seydina Cheikh nee na kon làmmeñu abou bakar moom benn waxam nu muy toll nee na bu omar lan lay toll te noonu kenn te na bokkul ak malaaka yi nga xam ne ñoo nekk à la proximité divine nga xam ne ñoo ki yàllaa dëkk ñooñu képp muy malaayikal aalina seen benn tasbix mën naa yóbbu euh, mboolem tasbix yi ko jiitu te ñoom dabuñu benn yonent bu tas benn yonent kese mën naa yóbbu ci cadram malaaka yu baree baree bari aktaab yi ñëwaguñu nee na et pourtant loolu yëpp day bokk ci chiffre bi ñuy konteel ki jàng salaatul fatiha ci faveur bi mais ak ci chiffre bi excepté bu yonent bi xam nga looy looy ciy dégg ndekete ñoom njabootu yonent bi lañ moo tax léegi nag bu fekkee loolu bépp zikr nag boo xam ne mas nañ ko zikr ci wujud bi euh, ñu konté faveur bi ak voix yi ak chiffre bi ñu multiplier ko par six mille fois moom la ñuy jox benn euh, njaboot bi jàng salaatul fatih ci ndigalu cheikh na tijaani mais ci martaba zahir bi Cheikh Al Hadj Omar ne nag incha allah dinaa clôturer li ci des pour wan la ne salaat fatih dëgg dëgg dëgg dëgg ku ko nirale ak benn jaamu yàlla yàlla liñ ciy déggee daal mooy ci alamul arwaax li ñu waxoon ci gannaaw ba ñuy séddale may dañ leen séddul woon rek. looloo tax mënoo ndax bari na kuy wër naan lii du dëgg du dëgg